ginnaaw di ñëw bi ñu sant leen gërëm leen bu baax a baax njàngat mi ci teqantal bi ci li nga xam ne mooy victoire bu Argentine léegi ak Neymar mi nga xam ne sëngéem na waaye am na kàddu yu mu yebbi yu jara bàyyi xel kàdd yooyee teey xel ci ñi nga xam ne ñooy ay fansam ci football ci wàllub équipe national bi nga xam ni ma nga ca tey jii waaye li leen toogloo du lenn lu dul yaakaar ju foor walla naagu mënees na koo tuddee loolu bala ñu ciy dikk ñu ñëw ci lal bi céleste bi nga xam ni jaar nañ ci kaw orange yi ñi def loole taj nañ lu mburu dajul ci taal ñoom ñi ànd ak Lionel André Messi ci match boo xam ni daanaka ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàll football gàtta nañ leen ñu lekk ba suur ci mbégte moo xam ni football lii rek lay jariñ Lionel André Messi akub équipe am ñooy ñi nga xam ni ñoo njëkk a ubbi li nga xam ne mooy sostivité yi Molina fanweeri minute ak juróom la joxoñ kër gi Lionel André Messi ci pelanti ci càmmoñ ba mu dóor ko ca poqos ba muy ñaareelu bii boo xam ni Argentine am na yaakaar waaye quatre-vingt-troisième ñu égaliser dem ci li nga xam ne mooy prolongation yi équipe bii di Argentine fayu wala boog équipe bii nga xam ni moo nekk Pays-Bas fayu ñu dem série pelanti yi ñoom Messi gagné Brésil moom li nu ci ñëw lu ndaw lay doon mooy kii ngeen di gis di Neymar li mu xam xamle ci ay kàddu mooy ak ñëwaatam équipe nationale loolee mi ngi koy naatable bu baax a baax mënu cee wax lu leer waaye li mu gën a jige mooy retraite internationale boo xam ni noppalu ci équipe nationale donte lim leen yéene mënu leen koo jox loolee mu tayal bu baax a baax ci déception yi nga xam ne yebbi na ko waaye Neymar daa mer nanu ko bàyyi ba mu giif bu ko defee lu ma wax ñu gëm ko